Amis fidèles internautes, vous qui avez choisi la chaîne des grands événements partout à travers le monde, VIP People TV, s'informer juste vrai, comme ni ma koy su ngeen abonné ba noppi bu len faté ba cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo tay ñu ñëw leen mercredi 6 décembre 2023 indi leen benen numéro scandale du jour nee naa leen dañuy xol leen mo fi gëna a méngoog scandale ñu indi ko faram-fàcce ko daal koy ségg def suñu introduction wala leen vidéo bi ngeen seetaan ko ba noppi ñu indi suñu commentaire yeen aussi à votre niveau ngeen jël seen commentaire dal di koy tek ndax té vidéo la ku ci nekk amna ci gis-gisam moo tax ñu leen koy indi tous les jours sur la chaîne des grands événements VIP People TV fu commencé tey ce mercredi 6 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV dama bëgg ñu dem foofu ca Pire maanaam foofu nga xamante ne kii Mamadou Ndoye Bane fay ban vidéo la def bi nga xamante ne nga xamante ci Ousmane Sonko la bokkoon moom mu bokk ci coalition yi nga xamante ne ñooy jàppale Benno Bokk Yaakaar Mamadou éléments Bane diggante nga xamante élément Ousmane Sonko la lan moo doxoon seen diggante nañu vidéo bi le soir. ci TikTok bi la lay dugal. di as na Sonko. bàyyi na bàyyi na kat Sonko. man yaa sama mère man moo gën a ma war a wéy. waaw waaw dégg nga ko. waaw bu kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo bi nga xamante ni kii di maire Pire di Mamadou Ndoye Bane nekk foofa ca diwaanu Pire gu rëy ginnaaw bi nga xamante kii élément Ousmane Sonko la woon doon takk bracelet boobu nga xam ne ko dippee parti boobu nga xamante a feeñ a baax ci kii moom la ñu nekkoon te ñu dissoudre ko ba noppi daal di dakkal seen collaboration ak kii nga xamante mooy Ousmane Sonko pour firndeel loolu li wane woon ni yow mii kat parti bracelet bi nga doon takk moom la waji ji nangu kii di Mamadou Ndoye Bane di maire Pire dal di koy dagg sànni ko fële xamal ni ko dal jamono ji bayina ki nga xamanteni moy Ousmane Sonko en tout cas doy war jamono ji fiñu toll révélation yaangi feñ deug jaangi feñ dafa melni ni li ñuy waxoon rek lu dul du yag manam fen bi nga xamanteni won du mësa bi jaw mo commencé ruus ñu bare di ci tek sen beut motax ñu bare ñi ngi won ginnaw ki nga xamanteni moy candidat bobu ñu yakaron ni que moy doon président de la république en 2024 ñëpp tegoon ko ci focus 2024 ñëpp a ngi daal di wali ginnaaw. jadi jadi jooju daw yoon liggéey jëli fii waay